يا الله يا من لا إله غيره da nga am jafe-jafe ci sa wàllu dund jàngoro rab ak cat ba ci sax tëju ci sa wàllu wërsëg lii yëpp mën na la gàllankoor ba tax loo yaakaar rek mu tas kon nag bul xaddi benn yoon ndax fa xam-xam ne woon ba tey jugu fa dawal seeti sëriñ Mohamed Jaxate di boroom xam-xam bu mag ci wàllu lasraar listixaar bu leer wax la sa passé ak sa tolluwaay ba nga teg sa bët loolu moom ñëpp mànkoo nañ ñi amu ci morom ñi am jafe-jafe néew kattan ci wàllu sëy ak ñi tukki bitim réew te ay këyit jafe leen lool daw leen seeti sëriñ Mohamed Jaxate seen aajo yëpp faju ngir jokkoo moom wooteel ci numéro téléphone bi 77 334 83 80. ak Serigne Mohamed Diakhaté aajo yëpp ay faju lii yàllaa ko ko teg te tamit ànd nañ ci ngëm yàlla bu mot sëkk ñu ngi ko koy sante tamit moom yàlla di ñaan nag ci kaw luñ ko ko sante bu teg jël ñu kii lu mu ko teg li mu may ko wér-gu-yaram incha allah xam di dënk askan bi di dénk sénégalais mbir su dalee ci nit walla su dalee àndi ca xel ak dal lu am solo la ci mbir nit ñi di wax gëstu ba xam loo ciy wax lu am solo la yàlla dafa wax ne baada audu billahi min ashaytaani rajim wa in jaakum faasiqun bi nabayin fatabayyanu an tusibu qawman bi jaalatin fa tusbihu ala ma faaltum naadimun mu ne su ay kàccoor walla su kàddu jógee ñëw si yéen gëstu leen kàddu gi ba mu set ba mu leer leen ngeen soog see àddu kon ñu ngi dénk sénégalais yépp su fekkente ni mbir ñëw ne te leerul la xamoo nan la yéem na la gëstul mbir mi ba mu leer la nga soog see mën a àddu c'est que heure boo gëstu heure boo àddoo lu nga xamante ni leerul la bàkkaar rek nga siy jëlee doo si jëlee euh, mbaax. dafa dul sax euh, lu yëfu jullit. kon jërëjëf. kàddu yi nga xamante ni itam dañ ko yëkkati nekk lu ñuy teg ci deru jullit te loolu sax mën naa ne ni amul jarul ma ciy jaaraat. kon kon jëf sénégalais yëpp nañ xamee ni lii amut te yàlla toujours lu muy won ci jaamam yi lu jaamam yi manut lu leen di yéem yàlla kay moo. moo yeyoo di won jaamam yi lu nga xamante ne mënuñ ko nit kay mooy def lu nga xamante ne mën na ko wala sa moroom yi nit mën na ko mu ñàkk laa yem waaye yàlla dafa saxoo yàlla dafa saxoo di def teg jaamam yi luñ xamut luñ lu leen di yéem chaque jour kon lii nag lu ñu yéem la waaye yàllaa ñu ko teg <laughs> ñu ngi lay jaajëf. ñu gis nañ ci nit ñu bari di commentaire kenn ku nekk di ciy wax loolu moo ñu xaw a jaaxal te it liñ ciy wax ñu si bari maanaam xamuñu li ñuy wax xamuñ ci dara. moo tax jamono bu nekk lu xew nit buy wax balaa moo wax rek na wax loo xam ne moom xam na ko loolu moo gën wax dëgg yàlla yi ñu ciy wax yu bari daanaka amu ci benn njariñ buñ la laajee ci loo xam ne xamoo ko nel nii laa ko gisee rek nga yem ci parce que loolu mooy tax doo ci layoog sa borom bu ëllëgee waaw man daal yaa jàpp naa ne lépp lu xew daal niñ ci wax lu rafet loolu moo gën yéen ñi nga xamante yéenay famem en tant que yow mi sax nga xamante ne yaa gën a sës si moom tey ji bi ngeen déggee ñuy ñuy polémique ñii di wax ay nitu guddeeg ni ni mel ak yooyu noonu tey ji yéen bu loolu en tant que yow doom mën naa ne sax si moom naka lay def yow mi en tant que waa waaw li may def rek mooy naqari ma rek xam nga nit maanaam su lu ñuy wax booy wax ci nit loo xam ne baaxul balaa nga koo wax rek da nga koy natt ci sa bopp waaw tey bu bu may wax ci nit ku loo xam ne baaxul su ma ko nattee sama bopp rek yaakaar naa dinaa mën a mesurer man li may wax ku mu nekkoon sa yaay wala mu nekk sa euh, sœur wala mu nekk sa mag yaakaar naa même ni nga ko gisee noonu ci état boobu noonu booy wax di nga mesurer li ngay wax te damaa jàpp ne ñay wax noonu ñoom dañoo xamul rek moo tax ñuy wax parce que fi mu nekk noonu tey ji ñun sax jaaxal nañu parce que kenn xamul moo moom lan moo ko fa yéegal man sama bopp laaj naa ko mu ne ma yéen la kan moo lay wax ne man maa ngi fii ma ne ko ñun de yow fi ngay yéegoon démb dafa am ñu euh, ku la léegi ci lañ la partage si whatsapp bi man ci laa ko jot sax man sama téléphone yaa ngi dégg bi ma ko jotee man sax xaw moo ne yow la léegi ginnaaw si ci lañ ma woo expliquer ma comme li ma la wax ma laaj ko yow fan nga jaar ba yéeg foofu mu ne ma man ci biir kër gi laa jaar man ne ko yow xanaa bi nga fay jaar xanaa kenn gisul la mu ne ma déedéet yaakaar naa waa kër gisuñu léegi nag bi ma ko waxee nag ñi ma toogal ñoom dañ ne sapeur bi ñu koy wàcce ñoom ci biir kër gi lañ ko jaarale est-ce que du moom loolu la jaawale man ko ah waaw man de loolu laa mën a jàpp comme moom loolu la ma wax waaw loolu moom dañuy wax rek yéen yaakaar naa war ngeen a seetaan vidéo bi vidéo bi lépp yaakaar naa comme ni ngeen ko gisee ci vidéo bi ñun noonu lañ ko gisee te yaakaar naa koo xam ne dafa nekk mag ba mu yàgg mu nekk xale xanaa est-ce que konoon yi daañu ko wàcce. waa gi sax di def ay cuuraay yooyu. waaw te dégg naa ñu ne. biñ ko yóbboo bi ñu ko yóbbu biñ ko dugalee waaw bi biñ ko dugalee ci salle bi kenn gisul ay yéree rek lañ fa gis te tey man ak moom ñoo yendu waaw man ak moom moo ñëwee comme la kii wax rek vidéo bi man bëggoon naa ko woon sax waaye xam nga ku tawat nga koy ngay nga koy laaj di ko sonnal ci yenn yi loolu wax dëgg yàlla du xel waaw moo tax vidéo bi sax man wanuma ko ko yaa ngi dégg ci laa waxtaan ak moom noonu ginnaaw si gi ñu toog euh, ci salle attente bi fii nit ñi di toog noonu ginnaaw si gi moom muy nelaw man ba may ñibbi si sax fekk boobu mu ngi nelaw ba tey jii nii am na sama rakk bu fa bu fa nekk moo fa war a fanaan kon xam nga ne kooku mu ngi foofu waaw mooy li may wax rek ma doomu aadama yi nañ fexe toujours lu xew ñu def ci ndànk bañ ciy wax loo xam ne bu ëllëgee buñ la taajee nga rëcc koon di naan sama xel laa doon waxee wala nangam laa doon waxee nit ki daal lu muy wax na ko xam lu mu xamul mu noppi loolu moo gën.